damay dox ci quartier yi ñu may tooñ ñu may cokkaas lu lu nekk dégg naa ko sama kër àddina aussi que sama yaay sonn si trop samay parents sama yaay dugg fu nekk ndax man lu mu daj si man daju ko si benn dooma dama wa sama dëgg rek na nattu daa du wees lu nekk gis naa ko si sama këru àdduna ku nekk ak nu la yàlla bindee yàlla waxoon tey nii dinaa ko mel ak ah. jàmbaa nga yow buñ jooy jàmbaa nga li yëpp dañ dégg nga dee dañ incha nit ñi nañ ci ut pexe ba mu dañ ak jàmm yow jàmbaa asalaamaaleykum ami internet Mak TV dalee nag jàmm tey ñi ngi fii ci commune bu Hann bel ci Yaraax plus particulièrement ci Hann 3 ñëw seet si euh, suñu naataangoo bi nga xamante ne maanaam tey dañ ko seet si parce que dafa am cas bi nga xamante ne cas bu urgent la bu important bi nga xamante ne boobu ba léegi mi ngi ci di daw depuis bi doom ji juddoo kon mën nañ ne depuis bi doom ji juddoo mi ngi ci di daw ba tey amul solution kon dañ koy bàyyi mu dugg présenter boppam ñu jàll moom ci waxtaan bi mu wax ñu fi mu toll nii mbir mi lan la ciy xaar lan la ci bëgg ak tey lim ci daj yëpp soxna si nuyu nañ la. fay naa leen. soxna si ñu bàyyi la nga présenté wax tur bi. man mama laa dama mama Diagne dëkk Antoine waaw. mama tey ñu ñëw gis sa doom ji tey maanaam mu am lu ko dal mu nekk cas bi nga xamante ne lu mel nii xawoon nañ ko mos gis te yàlla def na fi mu mujj neexul. moo tax mu tiital ñu ba ñu daw si ñëw seet la fas yéene waxtaan ak yow ndax nga wax ñu tey lii lan moo ko indi ak euh, li nga ci daj yëpp. waaw di leen remercier rek kontaan gën a dolli sant yàlla di gën a dolli sant yàlla lii ngeen def nii gëmewuma ko sax waaw déplacé ba ngeen ñëw fii waaw foog naa ni yàlla sax. si weeru koor gi solution ñëw na mooy solution bi lu ñëw mooy nii dafa tome weeru koor te ba muy judd moom weeru koor la judd te ba muy judd depuis ba mu judd si naissance maa ngi ciy daw ba léegi lépp lu ma ci mën naa def naa maa sonn ba toog bàyyi sama bopp yàlla moom si affaire bi daal ni ma ko kiiyee si naissance la dem naa def naa ay rajo def naa ay éco def naa lu ma mën daal lu nit xalaat loo xam ni mën naa ko rek def naa ko. tey lii boo ñuy wax tey lii nan la commencé ak lii yow lan nga yaakaar ni moo ko indi. Ah, sama sama xalaat mooy ni nit il faut ngay jàngat sama xalaat mooy nii moom ba muy judd ci naissance am dafa dafa dafa nu mu juddoo man li ma dégg. ba muy judd sage fem bi parce que ñaari sage-femme man ñoo ma dem kii kenn ki dafa ne sëvel doom sëvel yaay ji nga bàyyi xale bi après si la jàpp ba xale bi juddoo noonu si la ko jàppoon parce que xale bi jooyut da ko jàpp di ko dóor di ko mbej di ko mbéj di ko mbéj maa ngi dégg sage-femme bi di ko bàyyi xale bi mbej bi da da da du tax mu kii parce que judd na 19 heures si ngoon 19 heures ba 6 heures du matin dañuy dogg gis xale bi muy def ay muy no muy nooyi daal daana nooyi mais muy yëngu muy yëngu la sage-femme yi daw mais lañ ko dem def rek man na gisuma ko sama sama diggante yàlla laay def bañ jël ko kii ko mais xale bi daal da dem onk di onk di onk bañ toogee ay cinq jours yow si naissance sama grand sœur euh, ne yow mama ma ne ko naa man sa lekku doom bi dafa dafa dafa dafa néew ma ne ko néewi ñu jël ko yóbbu ko xool ko après sam xool ko mun li est-ce que du tumeur mais ba ñu xoolee après ñu bàyyi noonu mais daal fu mu dadam jooy rek jooy jooy xamuñu lan la xamu xamuñu woon lan la mais ba mu kii rek li yàlla def sama papa ba mu amee huit mois may def moom noonu di boot di takk xaw ma lu mu doon léegi nu mu néewee noonu ñu ne ma ngelaw moo ko dugg boole ma ak kii li mu mën daa def naa ko dëkk bu ñu ma wax ma boot sama doom dem am huit mois sama papa mu ne ko te tenkaa yóbbu pédiatrie yi kii la daan teg ñu dem foofu léegi waaye ñu xool ba sonn waa ji ne bàyyi leen ba mu am 10 ans fekk bañ nit di ñëw léegi ba mu amee 10 ans rek si lañ ma boolewaat la daan fu mu dem fajoo sax dama ko fàtte waroon naa génn papier yi léegi si docteur bu jarul wax daal après kooku tamit def na si effort am yëpp def na si effort am yëpp xam naa dafa amoon tamit moom lu mu ragal dem na ba ñu waxoon ni moom dañ koy opérer ba def ko kii bu ñu la waree nelawal ah, ok waa loolu yëpp def na ko bañ war wax jour bu nga ko war a opérer mais docteur bi dafa dafa yaat mu kii ko si table ab mënu ko jugal mu jug mu ne moom du jël engagement pour opérer ko après man nag si laa découragé xale bi découragé am na benn docteur benn femme sax dafa buggoon kii muy jooy après kii nekk fa di jooy ma ne ko bu waree wér dina wér lépp nañ ko teg si loxo yàlla après moom moo ne moom mii si boppam mu ne yaay. garaawut nattu yàlla la man sax si la ma encouragé noonu sax man tamit ma bàyyi après ñuy dawalaat ay kii yooyu un an deux ans ñu wax bata bi ku nekk di ñëw di ma wax bata bi ma dem ba Tëngéej ñu jël papier am après femmes yi fa nekkoon américain la xamu je ne sais pas parce que anglais la ñuy làkk woo seen docteur bi mu ne ko foto ko ñu foto mu ne mën nañ ko faj kañ docteur bu mag mu ne mën nañ ko faj léegi si lañ jël papier ñu toog di faj di faj di faj ba quelque mois dossier moom këyitam gisuñu ko léegi dafa amoon benn xaritu tubaab moo demoon si directrice bato bi dem di ko lijjanti di ko lijjanti ba ñu jël ko chaque fin ñu dama woo chaque fin du mois di ma woo fin bii daal lañ ma woogu chaque fin du ñu ne bato baa ngi ñëw bato c'est que feebar bi moo taxoon corona bi boobu lañu arrêté affaire yi rek. loo xalaat rek éco bu nekk def naa ko SNR bu ne def naa ko ma ne li ma bëgg mooy sama doom ji ah, bu waree wér mu wér yàlla yàlla ma ko jox. bu mu wér ci kàttanu yàlla kon yéen a déggandoo tey baat yi fi jot a ruus daw na yaram li metti na trop ndax euh, xale bi ñaata at la am. muy mu ne mu ngi am novembre bi di ñëw lay am dix huit ans. dix huit ans xale la yenn saa yi damay toog xool ko. sama sama sama xel mais duma ko daal day xaw a kii daal parce que day màgg te ku ma gis gisa de yow yaa ngi faj sa doom bi loolu daf may déranger te fekk def naa sama effort yëpp ba jeex. ñàkk nga ci alal bu dul jeex. ba jaay samay or jaay samay or dama ko dem nëb dem jaay dem sàndaga jaay or bu jaree cent mille nga ñu fay la si 60 walla cinquante mille il fale nga jaay ko ndax bëgg sa doom mu wér parce que xamoo ëllëg ku muy jëriñ nit xamoo ku muy jëriñ. mu nekk lu tiis lu metti li nga xamante ne vraiment ñun buñ sañoon gis ko mu nekk comme moromam yi ndax xale bu ndaw la amagul sax 18 ans tey bi mu juddoo ba léegi nga nekk ci daw te amoo solution. kon boog ami internet Mak TV ami internet Sénégal ak mbokk ñi nga xamante ne ñi ngiy ñuy déglu. ñu ngi leen di woo yéen ñëpp ngeen gën a déglu waxtaan bi ngeen gën a déglu miam bi tey looy def tey yaa ngi woote tey tey la ban message ngay lancé. message bu may laaj lancé mooy nii ku ma si mën a dimbali parce que docteur bi sax amoon na kii man xam naa ni sax mën na ko faj xam naa dafa defe ne som bu ma laaj man mënuma ko joxe waaw parce que nit ñi am na ay dëkkanoo am na ay xame te ku tàllal sa loxo am na ñoo xam ne moom loolu la ñuy xaar man su ñooñu rek laay wax. ku ma si mën a dimbale dimbale une somme de ay quatre cent mille quatre cent cinquante mille loolu la ma waxoon waaw mais xam naa dafa dem a dem a dem a dem ba xam mooy loolu daal mais daal maa ngi tàllal sama loxo ku ma si mën a dimbale si kàttanu yàlla sama doom bi bu fekkee mooy lu gën si moom li ne si moom mu dëj waaw. kon ñoo ko déggandoo bu nekkee moo gën ci moom ñu ñëw jàppale ko parce que toll nii sonn na daw na fu nekk. ndax doomam ji bi mu juddoo ba léegi mi ngi ci daw te nit yaay amul lu dul doom te doom dafa fox ci xol moo tax nit sa doom bu ko dara dalee doo am jàmm doo am salaam lépp loo ci mën di ko def kon nag euh, lii mu nekk lu tiis li nga xamante ne ñëpp ñu ngi koy naqarlu kon dañuy continuer laaj bi rek mais feebar bi yow wax nañ ni mën na wér. waa parce que docteur bi dafa ma ne mu xool ko mu ne bu fekkee ni yow ak papam seen deret dafa dafa jege. affaire bi du wér bu fekkee ni doo leen ay mbokk affaire bi ni muy gën a màgg muy dëñ mais man li li ma mën a gëm mooy mooy ni fracture la liñ ma wax setewoo li ma wax fracture la parce que affaire bi fii dafa dafa vertoon fii dafa vertoon dafa métti boobu moo ko dem jàpp ba muy doon ay maux de tête muy def ay crise léegi si leen ko bindaloon benn garab boo xam ne mu di ko naan après affaire bi effacé wu mu dëñ naa deux ans naan na garab bi bu ko affaire bi daalee day jël comprimer bi naan ko rek après si la affaire bi di dëñ dañ jékki-jékki rek crise bi dëñ dama jékki rek crise bi dëñ daawul manqué garab bi man daal li ma mën mën mën mën sama effort moom garabam daawul manqué def naa ko. waaw mu nekk xale bu am jom ndax chaque jour daf ñuy romb di jàngi. elle est joviale muy ànd ak moromam yi di kaf di reetaan xam nga tey bu ñu sañoon lii ko dal deñ ba mu mën a gën a épanouir si àddunaam dundam ndaxte moom xale la xamul dara amul lul ay waajuram moo tax ñun ñu si waslu ak lépp li nga xam ne mën nañ ko dinañ ñëw def ko kon képp ku ñuy déglu maanaam nga am loo ci mën te nga mën a def te yàlla tax ñoo ngi lay woo nga ñëw fii dinañ la jox numéro ndaw si nga dem seeti ko ak lépp loo ko mën a dimbalee nga dimbalee ko te yàlla tax ndax nit moom ci weeru koor gi ñuy nekk comme li yaayam wax ci weeru koor la juddu mu nekk hasard amul comme ñu ñëw ci weeru koor gi di def te yàlla tax képp ki nga xamante ne daal am nga ay moyen mën nga ko jàppale boo ñëwee nañ la jox ni ko yaayam comme ça nga dem seeti ko comme ça nga waxtaan. tey xanaa ñu laaj may mun a mun a moom xam naa laaj ko dina metti waaye a tey lii noo koy dundee. njëkk a mettitul rek parce que dafa tudd damay dox si quartier yi ñu tooñ ñu may cokkaasu lu nekk dégg naa ko sama këru àddina aussi que sama yaay sonn si trop sama naa sama yaay dugg fu nekk ndax man lu mu daj si man daju ko si benn dooma dama wa sama dëgg rek na nattu daa du wees lu nekk gis naa ko ci sama këru àdduna ku nekk ak nu la yàlla binde yàlla waxoon tey nii dinaa ko mel ak ah. yow jàmbaa nga lii yëpp dañ dégg nga dañ incha allah nañ ci ut pexe ba mu dañ ak jàmm yow jàmbaa nga yow gis nañ ne chaque jour yaa ngi jàngi yaa ngi kaf yaa ngi reetaan xam nga lii yëpp dina dañ dégg gën a déggal sa yaay gën a continuer ni nga doon def gën a courageuse dégg nga te nga xam mooy comme ni nga ko waxee rek tu es brave tu es forte parce que maanaam ànd nga ceeg jullite ak xel mu dal ñu lay jaajëfal dina li yëpp dina dañ incha allah bu soobee yàlla dégg nga mais léegi yow kon ñu bàyyi la nga lancé mot de la fin looy wax tey nii nii xam nga lii moom tiis na doy na waaw mais nañ bàyyi lépp ci loxo yàlla waaw gën a gën a dolliwaat di sant yàlla di gërëm di gërëm yàlla gërëm sallallahu alayhi wa di leen di gërëm ngeen doon ay xale di dox lii c'est pas facile lii ngeen di def nii ci barke weeru koor gi dama leen di bàyyi yàlla loolu naa si dama leen bàyyi yàlla ñëpp rek ak képp ku ci mën a jàpp rek na si jàpp waaw jërëjëf kàddu yi rafet na ami internet Mak TV lii lañ leen indiloon tey di leen jox di daje beneen yoon te di leen ne bu leen fàtte képp ku ko soxla rek boo ñëwee nañ la yóbbu ba këram fi mu dëkk wala nga wax ak moom directement ñun ñi sax doo wax ak ñun ñoom ngay waxal yaayam ak papa mi toog mu nekk li nga xamante ne tiis na mais yàlla bëri bëri na sutura ci weeru koor yi nekk barki weeru koor yàlla na ko yàlla saafara ba may mun a mën a jóg mel ni mu moromam yi war a mel comme ça maanaam parce que li muy dund métti na torop métti na torop ndax njaboot moom dafa métti di leen jox dig daje beneen yoon rek di leen jaajëfal bu baax a baax.